parce que dama dama njortoon ne président dina changé te bu changé jàpp euh, ma ne lii mooy continuer. ah njort nga wax de kon ci. oui loolu laa gëm. njort gëm toutes les conditions sont réunies. Ah, ouais. pour que si les élections transparentes se passent le régime va changer ça c'est pour moi c'est c'est c'est c'est assez lisible sama loolu la ma def bon maintenant xam nga li ñuy dal nii yëpp encore une fois. il fallait ko en amont. en amont le dialogue aurait eu su fekkoon te ni dal tey day parce que le dialogue c'était pourquoi c'était pour créer mhm. de manière apaisée. c'est mhm. pour ça. Mhm. léegi aujourd'hui boo liiree li xew tey nga comparé ko ak li dialogue bi. ban dialogue ban finalement. oui parce que am nañu participé dialogue bi ñu génnee nee nañ wax nañu lii mais dañoo fël seen gémmiñ. Ah, am satu saw Sidibé mu ngi woon ci dialogue bi toog na fii nee yu bëri yëkkat na ko ci dialogue bi mais ña fa nekkoon sax ci mouvement dañ ko doon tam waaye mais xam nga problème yi mooy nii xam nga moi je pense que euh, opposition bi dañ xaw a ñu bal mën a tuuti quoi dafa am naïveté quoi. Mm-hmm. combien de fois la soo ko def appel pour ne ñu organiser parce que lii ñuy seetaan nii di ko li koy dal di ko dal ñi koy seetaan mu leen dina des ko ñëpp aujourd'hui est-ce qu'il n'a pas raison aujourd'hui n'a pas raison la limite moom demul mais am na ñu dem ci côté opposition bi dañu na dafa naïve wala dafa égoïste. waaw xëy na naïveté lépp. peut-être bien je veux pas en arriver à tout cas li wóor mooy taxaw bi ñu waroon taxaw taxawuñ ko. ah mais parce que opposition Sénégal li ñu ci gis mooy ku nekk yaa ngi jàpp ni sa naataangoo bi xaw na am doole bu ñu ko faagaagalee yow ci ngay gën a mën a feeñ. waaw yooyu yëpp a ngi ci xëy na ça c'est de l'égoïsme sans doute waaw d'accord mën nañu ko wax. wala de l'égocentrisme même. bëgguma généraliser parce que je suis am na ñoo xam ne nekkuñ ci situation yi. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne xëy na loolu mooy la première chose en tout cas pour man li ñu war a xeex mooy fexe mu am dialogue boo xamante ni dialogue inclusive lay doon boo xamante ni bu ñu ci jógee réellement lii situation bi dafay leer processus bi leer nañ boo gisee ñi participe participe ci dialogue bi ceux qui ont refusé de participer c'est à <laughs> mm, mm, mm. woon ba ñu ba ba ñu décréter seen seen seen seen seen participation ba ñu ne def lañ nekk ana Karim finalement participation lan la ko jëriñ donc moi je pense que euh, mbooloo si ñuy dox li jiitu seen dox mooy lan mooy ñu d'accord ci ñuy doxee naka la teg ay mécanismes yoo xamante ni ñëpp a koy respecté c'est la première des choses parce que sinon après mais ki am rapport de faveur ki nga xam ne rapport de faveur dafa favorable. kooku mooy imposer lu ko neex. c'est exactement ce qui se et malheureusement <laughs> imagine énergie bi ñuy déployer tey pour casse affaire bi processus bi ce qui est ce qui est normal du bu ñu ko defoon avant. politique bi ñu egsi fii tey. Mhm. mais effectivement kenn ku ne jàpp ne ah naa naa ci génn sama bopp rek ba pare tout en sachant xamuloo ne même boo ci génnee nii à l'instant te kanam lay xaar xamuloo lan la. Mhm. loolu moo ñu daal aujourd'hui donc ma je pense que euh, li li li situation bi métti na jafe na évidemment euh, jàpp ma ne am na koo xam ne mun na ne lii mooy solution bi immédiatement tout sautu par contre kon déedéet continuer tant qu'on jafe na mhm. évidemment mais li ma ëppal solo mooy. Euh, nañu fexe ba li ñu indi ci situation bi ñu fexe ba après 2024 mu jóge fi ñu toog def dialogue lu sérieux def mm-hmm. processus yoo xamante ni vraiment ñëpp d'accord ni ne lii jaadu na mm-hmm. je donne exemple très simple imagine su fekkoonte ni vol volonté am na euh, fichier comment s'appelle euh, comment s'appelle logiciel bi nga xam ne mooy vérifier parrainage yi mm-hmm. pourquoi présenter candidat yëpp ne leen mu ngi nii ñu indi seen i informaticien ñu def audit bi moom leer nañ fichier bi lii lay def logiciel bi lay def ku loolu mooy consensus. ba ñu déggoo ci suñ ko mais papier comment papier yi lan lay jariñ archive pour denc archive loolu mais papier moo gën a fiable je pense même que fichier électronique. oui mais xam nga xam nga su fekkoon ne li nga papier bi dem ci papier bi pourquoi bu ñu ci papier aujourd'hui c'est pour voir la vérité des choses. oui pas. nest pas oui mais bu dee loolu ce qui s'est passé avec les fichiers de certains là nga xam su volonté bi amoon lii du am du ñuy wax lii. ok moo tax il faut prendre en amont. Mhm. les dispositions pour s'assurer que li war am dina am. pourtant opposition benn bon une certaine opposition yàgg na crier naan ñu ñu ngi jëm ci ay élections yu lëndëm. waaw mais malheureusement. tout est ñu ba duñ leen topp après ku ne yaa ngi dem ndax si wërsëg tant que man du ma ci bokk lu mu garaaw garaaw mën naa ci génn. ok tout en sachant que xam lu mën na rota après ce qui est